waaw ah, bëgguma woon wax ci élection yi parce que dama dama damay. non non du élection yi mais non non man je vous dis élection yi jëlewuma ci defet man jëlewuma ko defet ñoom ñoo jëlee defet xam nga moo demee élection ak condition yu ma demee. parce que de plus de yu ma demee ñu ndëbbuma list bi list list club yi am na club yoo xam ne bu ma demee sa assemblée générale bi laa xam ñu ay club lañ compétir ñu fenn direction technique nationale di jàppale candidat sortant bi. ligue yi di jàppale candidat temps bi àdduna di jàppale candidat sortant bi malgré ça ma ñëw am 42 voix plus de 30 pour cent 30 pour cent des voix am na ku ma woo sax na ma yow lu nga def sax maa turé def ko si football bi loolu tuddeewu ma ko defee pour une première candidature boo xam ne pratiquement sax man nit ñi ñoo bëggoon ma ma dem nekk candidat daf ko si condition yoo xam ne le président sortant matérielu fédération la doon man déjà maa ngi xaar sax mu jox ma si parce que club laa

ñii dañu taxawee nii taxawee ñii taxawee nii infraction boobu ñëw na ci sous région bi dem na ci Afrique kon yàgg na kon fraction bu yàgg na parce que 2012

mais su la nekkee ñu wax si. li muy wax nii man dafa mel ni bi mu ñëwee keroog junjoon naa ko. Mhm. les clubs fictifs. mais bari na. cette découverte laa nga def léegi comment se fait-il tey euh, ngeen dem ministère tout changement là qu'il y a eu dara amul est ce qui se passe Babacar Ndiaye moom lan la en fait. gis nga am na loo xam ne par respect par respect à pour ceux qui pour moi. mais par respect aussi pour ceux qui ont ceux, ceux qui pour euh, Babacar parce que dama si bëri mhm. ay xarit dama si bëri ay xarit ñu woteel Babacar surtout les présidents de ligue et tout ñu bari peut-être Babacar lañu àndal mais en fait dañ ma naw dañoo am respect si man mhm. respecté naa leen mais ñu bëri man su ma toppoon man ñu ma àndal du ma dem élection su ma toppoon ñu ma àndal jour boobu mhm. élection yu du am pourquoi yéen ñu fa nekkoon yéen mus ngeen fekkee benn élection muy élection municipale muy élection présidentielle muy élection ASC koñ boo xam ne ku bëgg nekk président mënul voter boppam est-ce ngeen fekke loolu de mémoire hmm. histoire contemporaine est-ce que mus ngeen fekke ku bëgg nekk président tu na pas la possibilité de voter tu n'es pas parti au niveau de l'urne pour voter pour toi. mais est-ce que ñun ci les poissons pourris yi ngay wax. non le po ça pourrit par la tête d'abord c'est la tête. waaw. la tête mais aussi ñoom. non non ñeneen ñi moom lañ bàyyi mais c'est la tête. <laughs> mais vous avez quand même magnifié le déroulement de de de de. non honnêtement li peut-être après dinaa lim tuur yeeg yooyu euh, lors de la conférence de presse mais on les a imposés à organiser ay élections yu xaw a niroog élection. d'accord te su boobu lool aussi Seydou Diagne on on a parlé le lendemain honnêtement. j'ai clos. bu clos non vraiment on s'est expliqué quoi entre hommes entre intellectuels. Mm. j'ai compris sa démarche. absolument j'ai compris sa démarche.